Aïcha dafa mel ni axu euh, gayen yeeg mboojee ni ñoom ñoo may bëgg a dal foofu nee nañ ma du miroir du Sénégal euh, rubrique économie la moo tax la moo tax euh, dafa ndànk de xëy rek di attaqué gayen yi wóorul de ah damaa xam ne rek guddi yi moom guddi guddi yi xaw a la ci yéen dafa wóorul rek gayen yi moom ayca boobu ay oustaz la mu noonu di leen nuyu bu baax di leen jaajëfal gayen yeeg euh, mboojee ni di leen wax ñu yokk muñ rek benn weer la incha allah yàlla nañ ci yàlla dugal ak jàmm ak salaam ñu génn ci jàmm ak salaam en dañuy dem ba Mbawane dans la commune de Kaya foofee nag askan wi dañuy am ay jafe-jafe ndax am nañu ay entreprise yu bëri yoo xam ne ñu ngi ca seen euh, gox ba waaye lépp loo xam ne dafay euh, tukkee ci lu gën yenn saa yi li muy dellu ci si askan wi du bëri rawatina ci wàllu koppar waaye nag entreprise yooyu yenn saa mu jural leen ay jafe ci seen wàllu rawatina bërëb yi nga xam ne dañ fay def ay mbirum euh, soppiku ci wàllu yi ñuy jëlee ci géej gi yenn saa yi mu ndi leen ay loraange jëwriñ ji nga xam ne moom moo yor wàllu napp gi nag ak directeur général de société boobu ñu duppee Barna Sénégal Kayar nee na dañu def seen kéemtalaay kàttan toog waxtaan ba fexe jaaf saafara jafe-jafe askan woowule ñu dem ba foofee ca Kayar fekk fa Cheikh Anta Diop say li ko dagge mbaawaan jàpp kër ab Ndoye ba Kayaar jigéen ñi góor ñi ba ci mag ñi ñëpp génnoon doon teeru jëwriñ ji nga xamante ne moom yor wàllu napp gi fii ci mbaawaan ay xale ñoo génnoon yor ay fulaar yu xonq di wax jëwriñ ji nga xamante ne moom moo yor wàllu napp gi usine bi nga xamante ne def nañu ko fii ci Kayaar ngir muy coppar ñi jën yi ministre bi ginnaaw bi mu leen déglu lii la ci dolli. kon gëwuma ne bëgg ngeen ñu techniquement ñu wax. Hmm? waaye lii usine la. Hmm. te traitement de produits halieutiques. bi may wax ak ni kii amul agrément sama ministère. Hmm. pourtant tabax nañ ko ba mu yàq. j'ai l'agrément de tous les autres ministères monsieur le ministre. waaye kii di directeur général bu baax na Sénégal fii ci Kayar. di indi leeral ci lii yenn ci ay ndaw yëkkati jëmale ko ci usine bi. Barna Sénégal moo jël lu mat juróom benn fukki gone yu yor ay yu dëkk ci dëkk bi jël leen de signé leen ay contrat ñuy xëy di gont ak di wàcc jël trois cent personnes yoo xam ne c'est des mareyeurs amuñu fi contrat mais c'est des euh, c'est ce qu'on appelle emplois indirects. bu nu demee ba am soo loo xam ne jën yi da daan yàqu ci tefes gi. wala sa jën yàqu sa loxo to doo am noo ko def nga gis ku ko mën a jënd defaraat ko mu doon jariñ loo xam ne dañ koy jariñoo kooku intérêt gi ci beneen bi mooy usine bi bi mu ñëwee yamul rek ci usine dafa jël population Kayar taxawal leen surtout les femmes surtout les jeunes jël jeunes yi Kayar dugal leen ñuy liggéey bu yàggee dootuñu dem mbëkk mi jël jigéen ñi Kayar dugal leen ñuy liggéey jël itam ñi nga xamante ne ñu ngi nekk aux alentours de Kayar ndax du kayaar rek la usine bi ëmb mën na laal ba Jandeer mën na laal ba Kër Mousse ndax lu yaatu la def fi social yoo xam ne formele les femmes en groupement di leen jox xaalis ñuy liggéey si tefes gi di jariñoo kooku intérêt la ngoon usine bi nun dañ ciy wax alhamdulilahi rabbil alamina nous on dit oui à Barna jëwrin ji yor wàllu napp gi daje na ak nappkat yi fii ci Kayar ak fas Boye nee na bépp jafe-jafe boo xamante ni yuppi nañ ko ci kanamam dina ci taxaw indi ci ay saafara ayca mu ngoog jaajëfal Cheikh Anta Diop ak say latir mi dellu si woon ci jafe-jafe yooyu askan wi di dundu ndax ay usines yoo xam ne dañu ko fa def te yenn saa du leen jural li nga xamante ni si moom mooy euh, koppar gu bëri si mu ne loolu askan wi bëri na torop luñ koy jooy dañuy am ay usines yoo xam ne day nekk ci bërëb yi ñuy dëkk euh, mais yenn sa ay la fay tukkee raar na askan wi di ko jëfandikoo. Euh, te investissement bu bëri lañ leen di jural as comme ni nga ko waxee parce que surtout wàllu jëndal wax na ko fi je pense ci jàngat bi ñu fi doon def ak invité yi bi ñu fi dalal Pierre. doon ko wax ñu ci bëri dañuy am usines yoo xamante ni dañ fay conserver jën et cetera mais demoon nañ ba day fonctionner ndax la muy consommer ci courant bari na mais mm-hmm. duñ am lu ñu def ca biir loolu tax nag day dem ba ci pertement lay mujj et je pense que il faut saluer aussi ministre bi léegi moom it bi nga xam ne dellusiwaat na xelam ba mi ngi def ay tournée dem déjà di daje ak acteur de la parce que gis mm-hmm. ñoom déjà c'est boo xamante ni xëy na dafay saafara parce que annoncé woon nañ fi aussi benn conseil présidentiel jëm ci wàllu pêche bi je pense que bala ñoo euh, a indi ay saafara surtout wàllu napp gi gis nañ ni quand même coow li bari woon na mm-hmm. encore affaire union européenne dafiy ñëwaat parce ñu ngi doon wax naan ay bateau de pêche bateau yi nga xamante ni ñoo jóge fu waa licence de pêche yi bateau yi jóge bitim réew ñi di napp ñu jàpp ne lu ci bëri ci jën yi ñoo ko yóbbu gone yi di jël gaal yi di dem di am accident wala ñuy dem bitim réew te loolu lépp day loo xamante ni war a càmbaraat parce que Sénégal quand li fi nekk ci côte bari li mu am ci géej bari mais mm-hmm. aussi ressources halieutiques yi mi ngi commencé raar loolu nag gestion bi la gën a posé problème ak gouvernance bi. Mm-hmm. defe naa ne am na solo kon li nga xamante ni si moom mooy tukkee ci li ñu moom askan wi di ko jëfandikoo ngir mën a wàññi seen ay euh, jafe seen i tolof defe naa ne wax na ko am na solo Mortalla mm-hmm. jëwriñ ji dem waxtaan ak asken wi ndax nag am jafe-jafe gis sa kilifa mu mën laa wax mën laa dalal euh, loolu rek xëy na bu mënta saafara yi tamit. sedd na xol li ñuy wax mas euh, fajul góom waaye sedd na xol. waaw je pense ministre bi tànk yi mu jógee fan yi di ko dox loolu mooy dimbali boppam mooy dimbali aussi président Macky Sall ñu ko fi teg parce que bu fekkee secteur bi dafa am problème acteurs yi fu ne ñu fay dem di wax. mënuñu laa gis bu nu bindee dun la gis ñu gis nga euh, ñu nu invité woon fan yi yëpp mm. euh, tey euh, yëngatu ci wàllu napp kii bi napp gi bu nu ñëwee fii à chaque fois loolu la ñuy wax mënuñu koo gis dañuy def ay demando duñ ko gis je pense que mu sol dàllam di dem di nemmeeku ñooñu jafe-jafe yi ñuy dund lu am solo la dina régler problème yu bari ci secteur bi incha allah. mu ngoog Mokhtar rawatina problème yi nga xam ne dafa tukkee ci napp gi aw yombe jën temps bu gën a bëri. <laughs> naan nag jën xaw na raar. <laughs> xawul raar sax daa amul jën jën amul chérif bu amee dafa cher. légume moom am na légume moom marché bi moom légume tuuru na mais par hmm. contre jën moom. ndawal gi daal war nañ ko xoolaat daal. xanaa ñu def ñoom maam nañ daan def rek yenn saa yi bu ñu amee seen kaytax weer ba mu wow daal di jël seen pot denc waa jël seen ñebbe waa jël seen euh, gerte noflaay. te boo seetee moom ëpp vitamine sax. loolu yëpp ay recours la de solution. ba keroog ñu ngi fi doon wax ba wax fi waxu diw ñor diw ñor gi daal gisaguñ ko. <laughs> <laughs> sëñ bi jaar. day jaay lew la wut di wut day jaay. ndawal lay jaay ñu sëñ bi jaar indil diw ñor bi. day jaay asalaam amul leb la amul leb waaw. teew bi teew rek. defe naa ne gaye ni dégguñu mbóot yi ni dégguñu waaye diw ñor ak eh, daxin wala diw ñor ak. ak mbaxal sànni mbaxalu sànni. baax na de teew teew bi teew daal laay def ku mën a fay ci teew ñu indil la. ñu indil la ku mën a livré la. ayca boog mi ngi noonu ak grand bourba ku dis pa ñàcc pa boo génne amul xaalis doo am butéel bi ju diwu ñor Chérif a koy jaay plateforme boobu Chérif a ko yor <laughs> diwu ñor point com. <laughs> point com xam naa xarala prochaine euh, semaine prochaine incha allah du ñàkk ju ñëw ci daal. ayca <laughs> mi ngi noonu kon awa waajal ko diwu ñor point com bàyyi le grand bourba Chérif Dia mi ngi noonu ayca awa ñu daal di xuus ci sa rubrique xarala ci kanam tuuti lay doon.